ci euh, teew fii su waxtu wi euh, jotee ci soir d'info di leen nuyu bu baax a baax te leen di jox seen euh, wàccuwaay ñu ñëw ci wàllu actualité ni koy defee saa su nekk tey nag ñu génn tuuti ci li nga xamante ne tàmm nañu souvent di ko faral di def bi la yoon nag tey dañuy waxtaan wàllu alam bi dinaa wax sànq ci kanam tuuti lan la ñu fas yéene waxtaanee leneen nit loo xam ne am na solo ñu koy waxtaanee mu soxal la nga xamante ne xew na fële ca Niger am ay solda yoo xamante ne nii ay groupe jihadiste terroristes ñoo dal seen kaw euh, daal di ci euh, faat lu toll 71 soldats du ñàkk dinañ ci ñëw gën a yaatal ak euh, directeur bu Timbuktu Institute di docteur Babacar Samb ci kanam Bakary pardon Samb dina fi teew bu ko defee ñu gën a yaatal ci li nga xamante ne xew na fa ak it li nga xam ne jot nañ fa déployer ci ay forces ngir fexe rek xeex loolu di acte terroriste yi nga xam ne gis nañ ko foofu foofulee du ñàkk dinañ ci dellu si ci kanam tuuti lay doon gannaaw 20 bi nekk pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko wàllu alam bi ni ma ko waxee sànq projet dépollution baie de Hann boobu ba léegi ñu ngi koy yëkkati ay at jàll na lañ ci dégg ci ay financement bëri na euh, toll nañu fi nga xamante ne doon nañu waxtaanee wàllu études yi ñu war a def recherche yi naka noonu ak it euh, ñi nga xamante ne ñoom la projet bi laal naka lañ leen di indemniser du ñàkk dinañ ko gën a yaatal ak suñu gan boo xamante ne ci kanam dina fi teew tuuti mu di euh, ki nga xamante ne rek mooy président réseau protection euh, de euh, l'environnement mu di euh, ki nga xamante ne moo di Mbacké Seck ci kanam it mu teew fi ndax moom dafa tardé ah, naa ko wax rek souvent damay bëgg di suturaal yenn invité yi waaye dafa tardé du yegsee rek ñu gën yaatal yeneen nit lu am solo mu di char centrale à charbon bu baax ñi nga xam ni ministre de l'environnement di Abdou Karim Sall yëkkati na ay kàddu ne daañu ko tëj daal di koy transformé def ko centrale à gaz lépp lu ci mënta alam bi dinañ ko yaatal ak suñu gan googu bu fi teewee ci kanam tuuti lay doon ajuma bu jot ñu ñëwit ci agenda sportif bi xam match yeeg ñoom seen li nga xamante ne rek mooy gën a fës uh, ci weekend bi Cheikh Tidiane lañ ci àndal Cheikh Tidiane Diagne kontaan ci teew fii ci plateau. maa ngi lay fay soxna Aram Touré di nuyu les téléspectateurs de la télévision Futurs Médias am mbégte chaque fois le vendredi ñoom jox leen nga xamante ni moo di le calendrier sportif du weekend très bien tourisme local bu ñu ko waxee xel day dem si ay Aïssatou Paye vendredi it moom it mu taamu euh, di ñu euh, yóbbu ci benn gox ci Sénégal foo xamante ne xëy na nit yi duñ fay faral di dem wala sax mu wan ñu yenn ci yoo xamante ne ay jéego la yu nit yi di def lépp rek ngir fexe euh, doxal yenn projet yi ak yenn yoo xamante ne fii ci réew mi la sukkandikoo du ñàkk ci kanam it mu teew fi daal di ñuy wax tey fan la ñu yóbbu bu teewee ñu daal di koy gën a yaatal mais tey dañuy commencer ak tàggat yaram stoppé wu. voilà en attendant ñuy doog xëy na dem projet euh, ca dépollution beer ànd ba bale wala set setal foofu. waaw ba tey lépp sotti ceeg def ci la rek. aram ñu njëkkee fan tey. Euh, football ak euh, championnat bu Sénégal xam naa ni yëg nga ni sax yëf yi door na ni ki weekend beneen mhm. passé Ligue 1 bi ni ki ëllëg nag la ñoo fas yéene door li nga xamante ni moo di deuxième journée bi waaye jàpp leen ni ci samedi gi dana am ñetti jongante bu njëkk bi nga xamante ni ñu ngi koy amal ca stade Ngalandou Diouf Rufisque diggante Tëngéej FC lay daal di doon ak ñii di waa bu Gorée waaye itam am na ñaari choc yi nga xam te ñu koy xaarandi certainement régie bi danañ war li nga xam ni moo di table rencontre yi nga xam ni fas nañ ko amal ñeel li di Ligue 1 bi euh, ñaari match yooyu benn bécce stade Fodé Wade bu Saly lay daal doon di rencontre bi nga xamante ni njort nañu ni war naa mën a neex diggante jàmbaar bu Saly ak Casa bu Ziguinchor beneen nag 17h ci stade Léopold Sédar Senghor diggante Jaraaf bu diggante Dakar Sacré-Cœur ak stade de lay daal di doon ci stade Ndiarème bu Guédiawaye itam dana am geneen jongante niki dimanche gi 16h30 diggante Douane ak ñii di waa ñaari tali stade Caroline Faye bu nga xam te ni ñoom ñoo di eh, génération euh, leneen yi nga xam te mën nañ ko ci dëxëñ itam moo di stade Albouri Ndiaye bu Louga ba tey dimanche bu 17h jotee daal di doon ak euh, ñii di waa Cneps bu Thiès Ligue 2 bi itam aram danañ daal di door li nga xam te ni moo di seen deuxième euh, journée pour se conformer au calendrier euh, donc ci wàllu programme euh, jàppale ni ëllëg di samedi si ndorteel gi genn jogante rek kay daal di am diggante jamono lay daal di doon ak ñii di waa renaissance li ci des ci wàllu jogante nañ ko daal di yeggale ni ki dimanche stade Caroline Faye bu Mbour ci bu 15h jotee Demba Diop FC bu mbuur dana tase ak ñii di waa nga FC stade Ngalandou Diouf Rufisque ba tey ci dimanche gi 16 diggante Port lay daal di doon ak ñii di waa Union Sportive Ouakam stade Mawade Wade bu Thiès euh, bu Ndar 16h30 ba tey ci dimanche gi diggante Linguère bu Saint-Louis ak ñi di waa Amitié FC stade Lat Dior euh, bu Thiès foofu itam dana am geneen jongante ci dimanche bi diggante Africa Promo Foot ak ñi di altine nag dana am itam yeneen jongante stade Alassane Djigo bu Pikine 16 ak EJ Fatick stade Amadou Barry bu Guédiawaye 16h30 diggante Football Club ak Kër Madior Aram pour l'instant loolu ñu mën a gum jàppandi certainement le temps que ñu introduit suñu invité pour daal di yeggali concernant bien entendu euh, lii di championnat yi ce sera certainement ci euh, kanam ci ñaareelu pàcc bi ñu dalal suñu gan di Mbacké Seck may wax sànq mooy euh, président réseau national des organisations pour la protection de l'environnement dalal jàmm ci plateau bi. jërëjëf maa ngi nuyu yéen ñi nekk ci plateau bi seen techniciens yi ak bépp. téléspectateur u TFM bu nekk ci àdduna bi. wax naa leen da ngaa de Sénégal yi ñu seetaan yëpp nee naa leen. non mosuma tardé embouteillage u Dakar yi kenn mënu ko régler la mobilité urbaine est un problème dans cette ville. très bien alors ñu njëkkee ci li nga xamante ne ni euh, junj naa ko sànq mu di euh, projet de pollution baie de Hann. ba léegi ñu ngi euh, xaar ñu jëmal li nga xamante ne rek digga woon nañ ko ci ci euh, defar ko ci site boobu noonu tey ñu gis nga fësal ci sa euh, page Facebook wax ne loolu kat bu ñu deful ndànk mel na ni du tey lay gaaw a sotti. waaw xam nga ko ndóbin rey sa maam da ngay boo gisee lu ñuul da ngay daw projet Baie de dañ ko tëgg ci. 2002 la première fois gouvernement du Sénégal woote réunion bu mag jagleel ko tefesu yaraax 2009 ñu am xaalis bu ñu ci def bu tolloog fanweeri milliards ak ñett ki joxe xaalis boobu Union européenne la. à mm-hmm. travers Banque européenne d'investissement joxe fukki milliards ak ñaar ak AFD France bi joxe 50 millions d'euros. donc loolu boo ko dajalee mu nekk fanweeri milliards ak ñett mu ngi Sénégal depuis 2010 ñu ngi 2019 ba tey projet bi démarrage am posé problème yàgg na yàggaay bu nga xam ni banque européenne d'investissement fukki milliards ak ñaar yooyu mu ci defoon daf koo rocci nangu ko. Mhm. boo leen di fàttaliwu en juin 2013 veille bi Obama di ñëw. France dafa menacé woon jëlaat xaalisam parce que projet bi dafa tardé woon. mais tey fii ñu toll ci 2019 bi banque européenne d'investissement jële fukki milliards ak ñaaram dem parce que projet bi ma ngay nelaw. nit ñi soxla nañ ko gouvernement bi affiché na volonté politique am bailleurs de fonds yi def nañ ci xaalis mais mu ngay tardé ndax ay lenteur administrative banque européenne dem Hollande yi ñëw directeur ONAS bi fi nekk dem Hollande négocier ak ñoom ba ñu nangu may Sénégal may c'est un don de douze milliards de francais fa pour ñu tabax benn canal bu nga xam ne day jóge port de Dakar dem ba Mbaaw bépp ndox bu bon bu nekk ci diggante bi mu dugg ci dem Mbaaw ñu segg ko loolu mooy financement bi nga xam ni moom mooy. loolu lan moo yéexal ba léegi liggéey gi. li ko yéexal mooy suñu réew dañu am li ñuy woowee la le code des marchés publics. Mhm. nga xam ni bu ñuy def benn liggéey bu am solo dañuy fexe ñi nga xam ni ñoo ko mën ñu joŋante. ko ci gën a mën ñu jox ko ko mais ci bii dañu jongante benn yoon am entreprise bu ko gagné ñi nga xam ne nag daan nañ leen kenn ci ñoom dem ni liñ ko daan d'accord ko bu defee recours loolu dafay jël juróom benn weer mu mu def recours ñu réévaluer ARMP génne ay dispositions yu wax ni nañu tenir en compte de ceci nañu tenir en compte de cela ñu tenir ko tëggaat marché bi entreprise bi gañewaat ko ki defoon recours defar recours nar ñu yóbbu juróom benn weer encore bi mu defee loolu nag AFD bi nga xam ni moo ci def xaalis ak olande yi nga xam ne dañu may douze milliards nee nañu lenteur yooyu dàqoon banque européenne d'investissement mu ngi leen di dàq alors que mbiru baie de Hann diggante Yaraax Caaroy Mbaaw ak Dalifort c'est une demande sociale forte nit ñi ñoo wax dañu ko bëgg gouvernement bi d'accord si ak ñoom def si ñetti conseil interministériel def si ñaari conseil présidentiel loolu day wane. mais que ñun mën nañ ko parce que tamit réussir projet bu mel ni dafay laaj euh, mu am expertise bi am tamit moyens yi logistique bi lépp pare ñu ngi wax impacté yi ñu ngi leen di indemniser à hauteur de 90 pour cent su ma jumul loolu la conseil technique bu directeur ONAS wax donc loolu noonu bu ñu ko naree def processus boobu yëpp est-ce que dinañ ko réussir ndax presque 10 boobu xaalis baa ngi fi ndax am nañu compétence yi pour mën a réussir projet bi. projet bi am nañu compétence pour réussir ko projet bi sax dañ ko yaatal boo seetloo bërki démb bi fi gouvernement français ñëwee ba ñu xaatim ak gouvernement Sénégal ay accord dañu ful xaalis bi ñuy def ci BDA ñun 33 milliards lañ doon wax léegi 79 milliards. la mm. Amadou ot signé ak le ministre français bi ñëwoon fii Dakar projet bi sax am na évolution ndax importance sam bu njëkk benn ànd la rek woon ci tefes gi mais fi ñu toll nii yaatal nañ ko ba tout le sud de Dakar les quartiers que sont Diamaguène Sicap Mbao euh, Gannaaw Rail Nord Gannaaw Gannaaw Sud tout le Pikine Sud dañ leen di connecté ci benn ànd ñoom aussi ñu am droit. comme on le dit dans les ODD ñu am droit à l'assainissement loolu droit la bu nga xam ni àdduna ñëpp ko war a am du quartier yu mag yi rek yu rëy yi ñoo war a am assainissement mais quartier Sénégal yëpp la ñu war a fexe ñu am assainissement donc xaalis bi mu ngi fi études yi jeex na ñi ñu war a dédommagé depuis conseil interministériel sur Dakar dédommagé nañ leen ñu mujj ñi ñu ngi jot seen chèque octobre passé. Mhm. mais ñun population bi lu ñu bëgg. mooy ni président de la république defee projet terre bu am solo lépp def ndax terre bi am defee noonu BRT bi bii am na xaalis président juróomi yoon wax na BDA ci conseil interministériel études yi jeex na. ñun population bëgg nañ mu am xaalis bi mu ngi fi mais dara waru ko mun tardel obstacle bi nu mu toll écueil bi nu mu toll pot de banane bi nu mu toll war nañ ko mun a gome ba li nga xam ne moom moo am yaraax am caaro am mbaaw jóge fa parce que c'est un problème de santé publique mm-hmm. c'est un problème de cadre de vie c'est un problème d'économie nationale mais loolu yëpp ma nga fa ñun xamuñu ku tooñ xamuñu ku tooñul dañoo bëgg président fulla ak fayda bi mu jox teer bi mu jox fulla ak fayda bu toll noonu baide an parce que wax na ko juróomi yoon mhm. déclaration officielle alors yaa ngi koy wax président wax na ko juróom yoon te commune sa kàddu ni ñu koy faral di waxee rek yàpp la euh, donte li nga xamante moo gën a essentiel dans ce projet mën nañoo jàpp ne am ngeen ko moo di xaalis bi avec les bailleurs de fonds nga xam dañ ñoo def nga yaakaar ne tey tey jii nii moom la ñu war a mën a def pour permettre à la chose d'aller l'avant parce que loolu ngay wax noonu chaque fois bu ñuy lancé li nga xam te marché bi kii gagné keneen def recours kon boo matul benn at boobu mën nañoo jàpp ni euh, pour saafara ko dana jafe lool mais Cheikh moo ñu jaaxal xam nga ñun population ñoo toogal suñu bopp ba wax gouvernement bi war ngeen wax ci mbiru BDA bi ñu ciy wax pour la première fois cent 1987 88 la am na fanweeri at ak benn. Mm. donc du ñetti fan. Mm-hmm. du gouvernement moo xëy rek ni dama koy defar ñun ñoo wax gouvernement da nga ko war a defar mu def fukki at ak juróom gouvernement soog a wax d'accord naa defar ko. wuti xaalis xaalis bi toog di xaar fukki at ak juróom-ñaar 2002 ba 2019 dafa yàgg mhm. quel que soit nu mu ti jógee jafe-jafe marché defe naa bu ko président defee projet prioritaire parce que wax na ko ni mu ko waxee juróomi yoon dem na conseil présidentiel Diourbel ci biir Bawal. Mhm. wax ni baie de Hann une urgence. ñëw na conseil présidentiel en juillet 2013 wax ni la baie de Hann une urgence loolu yaa xëyti dafa war a jeex. Mhm. xale yi ñu ngi dem ba léegi Espagne. oui gaal yi yaraax lay jógee caaroy lay jógee mbaaw lay jógee parce que géej gi amatul jën. mais pendant temps yan impact ngeen di dund exactement par rapport ak pollution baie de Hann bi. mais pollution baie de dafa am ñetti impact si ñun bu si njëkk mooy jën amatul. ñun bi ñuy nekk xale da ngay toog ci tefes nga gis jën yi di dugg ci biir géej gi sa gaal fii nga koy dugalee dem napp jën biy nekk ci biir mbaal bi dafay def une semaine doo ko mun a jeexal man bi ma amee bac dama dem liggéey usine jën ba mun a fay sama inscription samay doom mënuñu fay. Mm. xamuñu usine jën parce que jën amatu fa usine jën yi dañu wow koŋ ay usines yu nga xam ni céréales la fa nekk mboq fa nekk dugub ak bale donc usine jën amatul xale yi bu ñuy napp léegi dañuy def juróom-benni fan taal gaal daw ba Guinée au sud juróom-benni fan yooyu boo ko taalee gaal daw juróom-benni fan da ngay yegg Espagne. Mm. boo defee juróom-benni fan gine doo am jën mais boo defee juróom-benni fan au nord dem o nord. da ngay daan dans les îles Canaries donc loolu effet kii ensuite problème santé publique la circulation automobile les risques industriels ak polition géej bi saa ñuy def la liste des plages interdites de baignade baie de Hann mooy jiitu te géej gi amul amul vague zéro mais ndoxu bonu Ndakaaru yëpp daanaka fa la jëm ñun loolu la ñuy dund tey li ñu soxal mooy ñun population bi ñu fexe président de la république woo ñëpp ñi projet bi concerne wax leen dama bëgg mu démarrer parce que ces instructions doivent avoir force de loi su ko waxee ñetti ñaari conseil présidentiel ak ñetti conseil des ministre Abdoul Mbaye def ci conseil des ministre Mimi Touré def ci conseil des ministre premier ministre yëpp def ci conseil des ministres ñu wax ci ñaari conseil présidentiel xaalis bi nekk fii mais lan moo ko tere démarrer ñun population bi jéemuñu xam nu code des marchés tëddee jéemuñu xam naka la ñuy attribuer un marché mais dañoo bëgg ki ci war a wax wax ci ba ki ñuy tardeel arrêté ñu tardeel balaa hollandais yi jóge fi parce que dañu may xaalis est-ce que amul détournement d'objectif que tamit dañ doon wax étude bi dafay jël temps ñu xalaat ne xëy na xaalis bi une bonne partie nañ ko si def ndax étude bi dina laaj xaalis mais entre temps xaalis bi ngeen ne nekk na fa peut-être liggéey bi doo ndax dugaluñ ko feneen xul ful nañu xaalis bi c'était 33 milliards ñu yóbbu ko 79 milliards yi nga xam ne dañ koy consacré ci yokk études yi mais étude courantologie bi fan la intercepteur 15 kilomètres di jaar fan la ñuy tabax euh, la station d'épuration ñaata kilomètres la ndox bi di daw ci géej ba la ñu koy sotti loolu yëpp jeex na ba fit tuyau bi di jaar sax ña fay dëkk jox nañ leen programme de de de réhabilitation de la baie de bi ñu koy tëgg 2002 dafa amoon ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi volet restructuration la jubbanti mbedd yi ba camion mbali yi mën a yegg géej mm. beneen projet bi nekk dépollution ndox yi bon yi jëm géej ñu fexe ba dootu fa yegg parce que usines yi sauf ñaar parce que nee nañ 60 pour cent des tissus de la tissu des national mu ngi baie de diggante port ak mbaaw mm-hmm. xeetu usines yëpp nga fa ak seen yàqu-yàqu ICS di rey waa Mbaaw Senta di leen yàqal ñeneen noonu ñaari usine dong ñoo nekk norme di traité seenum ndox bala muy dem géej loolu la bëgg ñu def ko ci benn canal traité ko bala ñu koy sotti géej nit ñi dëkk ci zone boobu dañu am droit branché wu ci égout loolu mm. danañ ko réglé quarante mille personnes loolu mooy première mouture projet bi mais fii ñu toll cinq cent mille personnes le projet bi nar a genn wàllu million tout la partie sud de Dakar vont être impactées ñooñu nag li leen di impacté dara waru ko mun a freiner problème social la parce que l'assainissement c'est dans les ODD. oui mm-hmm. l'assainissement est une exigence notre constitution parle du du droit à un environnement sain. dëkk foofu ñu néew doole. te ñu ngi waajal waajal forum mondial de tamit euh, fii ci ci ci réew mi donc am na loo xamante ne nii. Euh, dafa mel ni bu ñëwaatee rek day mel ni beneen problème bu ñu teg ci table bi te dépoussiéré guñ ko boobu ba léegi. mais autre chose ma m'interpelle si li nga xamante ne moom nga doon euh, wax léegi par rapport ak industriel yi. nit yi fa dëkk ku nekk même su fekkee industrie yi ñu ëpp sax la ñuy polluer nit ñi bu ñu leen tàggatu sensibiliser leen bu ñu defaraatee foofu habitude yi ñu faral di am ak na nañuy euh, jëlee lieu def ko bërëb boo xam ne sottikaay lu ñu jot fa lañ koy sànni est-ce que loolu tamit aspect boobu jël nañ ko en compte. waaw jël nañ ko en compte dafay am volet IEC waxtaan ak nit ñi yee parce que su ma waxee ni 88 fanweeri at ci gannaaw xëy na yaa ngi maternelle wala école primaire tooñ ma la nag. 88 30 ans population bi ñoo jël conscience ni lii jaaduwul soo ko saisir gouvernement bi par le biais d'une pétition ñooñu boo leen defaree ba mu baax danañ ko sàmm danañ ko toppatoo parce que suñu santé moo ci dépendre suñu économie moo ci dépendre mais lan mooy benn nit bu yenu paan di sotti mbalit ak fukki kano ak juróom yu andi ndox mu bon lan mooy benn nit bu yore siwo ndox def ci mbalit ak kano yi nga xam ni toute la partie sensible de la ville fu nga xam ne ñi gën a doole fa la ñu dëkk di sotti seen mbalit ci kano yi ndoxu taw bi di ko yóbbu géej lan la ci population bi mën donc c'est un truc global te loolu la projet bi def projet bi ni ñu ko tëggee bu ñu ko sottilee forum mondial de boobu nar am Sénégal en 2022 man demoon naa forum mondial au Brésil mm-hmm. li ñuy def benn aan Sénégal daf ko war a wane mu féete kaw parce que lu extraordinaire la ñuy def xaalis bi mu ngi fi volonté publique politique bi mu ngi fi appui bailleur de fonds yi mu ngi fi bëgg-bëgg population mu ngi fi mais daal li ñu énervé nag comme ni ko chanteur bi doxee li ñu énervé mooy ñàkk a démarrage projet bi depuis fukk at ak juróom. mais mais mais yan structure euh, concrètement ñooy xëccoo li nga xam te ne moo di marché bi. waaw ñu koy xëccoo am na juróom benn entreprise ñoo defoon concurrence. bi ñu ko defee comme Hollande yi ñoo joxe seen xaalis dañu bëgg ko respecter le normes environnementales. Mhm. Hollande moo mel noonu parce que dëkku ndox la. bi ñu defee loolu ñu benn entreprise allemande moo ko gagné. amoon na entreprise allemande bulgare euh, chinoise sénégalais italien bi allemand yi gagné entreprise italienne ak sénégalais bi def consortium doon di ak CSE def appel ñu tëggaat projet bi ñoom seen remarque yi ñu defoon ARMP jël ko en compte ñu tëggaat marché bi sur la table avec de nouvelles waat même entreprise bi gagné mais même entreprise yi defoon appel loolu jëlal nañu juróom-benn weer bu ñu jëleelee juróom-benn weer ñun population bi tooguñu dañu sol suñu dàll taaluñu takk ñu morso bu xonq dañu seeti kilifa yi fëgg ministre yi ku ne ñun la ñun daal li ñu bëgg mooy ñu gaaw a wax lu ARMP wax ba ñu attribuer marché ba mu démarrer ñu dem seeti kilifa yi ba ci Mimi Touré conseil économique social ministre de l'intérieur ministre de l'urbanisme seeti le maire de Anne seeti le directeur de l'ONAS on a fait na travail de plaidoyer oui. parce que population bi fu ñu toll nii tey li leen concerne seen alam bi ak li ko war dañ ciy wax moo am Bargny moo am Mbëbës mhm. moo am Njaayel moo am Kédougou parce que réseau bi ñu jiite ñu am jafe-jafe environnement seen dëkk yëpp ñoom ñoo dajaloo di waxtaanee seen problème ñu waxtaan ak kilifa yi defe ni yéen fi jeex na mu jëlal ñu juróom benn weer mais malgré cela dara changé ñu ñëwaat defaat appel mu yóbbuwaat ñu juróom benn weer mënoon nañ ko muñ mais ñi indi seen xaalis AFB AFD agence française de développement andi cinquante millions d'euros ak les hollandais ñu nga xam ni don la de douze milliards nee nañu bu yëf yi amaatee lenteur ni bay def jël seen kaake bu ko dem seen yoon mooy am. Mhm. te li ñu dal dafay continuer metti parce que dañu am croix démographique dëkk bi yokk ay nit. pression immobilière bi am. pression démographique am. problème de santé publique am pollution bi yokk loolu nag dañ ko war a saafara en urgence urgence bi ñu jox BRT président jox ko BRT jox ko TER na ko jox maire na ko jox maire bi def na TER def BRT na ko jox maire bi régler problème mu waa Caaroy ci restructuration régler nuisance yi am mbaaw ñu dépolluer baie de parce que boo dépolluer baie de xar kanamu Ndakaaru mooy change ñu ñëpp ku si bëgg a dem sangu géej tey géej yu dangereuses yi ngay dem. nga xam ni boo ko xoolee rek doo ñeme dugg foofu. alors que ay kilifa dañ la wax benn an lañ jàngee lañ jàngee lañ jàngee fay kenn mëntu fa sang. amul vague utilisée amul vague. zéro noyade mais impeignable sur le terme existe kenn mënu faa sang. alors wax nga sànq beneen problème boo xamante ne ni eh, ci biir problème yi la bokk muy mbëbës am ay euh, dëkk ñoo xamante ne ñoo dëkk ca gox ba fas yéene amal suba manifestation ca place de l'obélisque ñoom itam ngir demander ñu eh, tëj bu fekkee baie de Hann pareegul ndax Mboos moom am nga yaakaar ni xam nga déplacé ko wala ut beneen site sax bañ koy wax ba léegi pour changer ko dina mën ne. Mbëbës beneen sit première premier site décharge publique de Dakar c' était dans la baie de fii Sotiba nekk tey ci gannaaw Sotiba moo nekkoon première décharge de de Dakar ñu ngi ko tëj 68 ñun bi ñuy nekk xale foofu lañu doon dem di formali tubaab yi parce que yooyu moo xewoon. fekk Mbëbës tàmbali na. donc décharge bi nekkoon foofu bañ ko tëjee utiliser nañ ko leneen. dañuy wër àdduna bi léegi décharge yu mel ni mbëbës amatul. Mhm. mbëbës reçoit 2400 tonnes d'ordures par jour. mbëbës polarise au moins plus de 3000 personnes yu nga xam ne ñoo fay xëy di fa daan seen doole. versé à l'air libre aussi. Mhm. à l'air libre parce que c'est une décharge non contrôlée à l'air libre. Mhm. aussi entouré par les populations. c'est un ancien lac sur 180 hectares qui a été comblé de plus en plus. parce que ñun bi ñuy nekk xale dem Kër Massar mbëbës da nga fa doon wut xorom. dàmba xorom yi dafa doon génne mais léegi. lane mbëbës kenn mënu ko nettali même bu fa mille personnes di xëy même bu mbalitu dakaar yëpp di fa dem c' est entouré de Malika Kër Massar et de Yëmbal mu am lixiviation c' est à ndox mi di xelleeku ci mbalit mi di dem polluer la nappe mm-hmm. phréatique. Dakar dafa nekk ci benn nappe phréatique qu' on appelle la nappe de Thiaroye bu jógee Kayar ñëw ba fii ci pont moo tax inondation yi yomb Ndakaar parce que nag boobu moo fees ndox période coloniale moom lañ doon naan mais fu mu ne nii kenn mënatu ko naan parce que dafa pollué par des nitrates et des et des métaux lourds mais n'empêche population bi boo demee ay quartiers yëmbal Malika. Mhm. ñàkk ndox pompe yaa ngi fay alimenter nit ñi ñu koy. ñu koy boo dëkkee zone boobu y a la nuisance olfactive. Mhm. xet gi daf lay sonal y a une pollution de l'air dakaar am na juróom benn centre de contrôle de la qualité de l'air ak benn centre mobile mais ñu dëkk autour de la décharge sur une ronde de plus de cinq 7 kilomètres ils sont impactés par les émanations de la décharge et nu mu polluer eau bi dafa impacter surtout Dakar moo tax depuis euh, d'abord soixante soixante-dix-sept ñu arrêté pompage nappe phréatique bu Dakar bi depuis 88 ñu arrêté ko mais nit ñi ñu ngi koy def d'une manière euh, mhm. clandestine donc daal mbëbës ci gàttal décharge bu ñu tëj la par décret depuis 2011. Oui. depuis 2011 ñu waroon ubbi la décharge de Sindia le centre ah, d'enfouissement de Sindia à Sindia mhm. mais population bi dafay bañ di américains yi di wax c'est un projet NIMBY not on my backyard waroo ko def sama wet na ma sori loolu la ñuy wax na ma sori alors moo tax problème bi continuer am à Mbeubeuss mais lu ñu war a saafara la parce que yaa c'est un grand problème demain on sera avec les populations. dinañu ñëwaat euh, ci moom si euh, kanam lay doon léegi léegi ñu dem seetaan publicité. jërëjëf Fatou Kiné dem ñu ñëwaat ci suñu gan di Mbacké Seck jiite euh, RENOP. maa ngi euh, wax sànq ñaari ponk yoo xamante ne àddu ci ba noppi mu des nag euh, centrale chabon bu baar ñi gis nañ collectif bi fa euh, nekk di taxaw plusieurs fois ci ay manifestation wax ne dañoo bëgg ñu tëj ko. ministre de l'environnement di Abdou Karim Sall wax ne daañu ko def centrale à gaz te loolu nag mi ngi ko wax si ndaje boo xam ne ni mu nga doon taseek réew yi sekk COP 25 bi ñuy waajal ndax xibaar boobu noonu. Euh, nekk na loo xamante ne nii yow euh, gëm nga nii dina dina sotti. waaw dégg nañ xibaar avant mu koy wax xamoon nañu ko dégg nañu ko du loolu la population ñi di xaar du loolu la sénégalais yi yëngatu ci wàllu environnement di xaar parce que dañu wax ni dëkk yi am centrale à charbon. yi ko mm. desee mooy dëkk yu am charbon seen biir. Sénégal amul charbon day importer charbon bi ñun ñëpp ñu ngi fàttali bu ñuy liir germinal mhm. ni génne charbon bi ci biir suuf méttee boo demee Amérique dëkk yi nga xam ni wagon charbon yi daf koy traversé dañu leen ko tere ndax pënd bi siy jógee day affecté poumon nit ñi charbon bi boo ko àndee stocké ko fi nga ko jàll pënd ba fay jógee day feebar nit ñi mhm. fii ci Sénégal boo nit ñi wax ci études yi mooy centrale à charbon Bargny li mu soxla ci ndox mi ñuy naan eau potable. oui c'est le même niveau de besoin que toute la population de Bargny te ñàkk ndox yi ñoo koy dundandoo. Mm-hmm. ndoxu géej 5000 mètres cubes d'eau potable la centrale bi soxla par jour en eau de mer mu ngi soxla 15000 mètres par heure ndax centrale bi bu baxee. ndoxu géej ngay jël pour seddal ko Bargny li fi am ci mool parce que dañuy wax presque 70 pour cent de la population de Bargny ci géej lay dund. mais ndox mu tàng moom di seddal turbine yi. dafay dellu géej. Mhm. lu mu fa fekk yàq ko parce que géej boo yégalee niveau tàngaayu ndox bi la fa doon dund yëpp day disparaître te Bargny moo ëpp mool fii ci Dakar donc dafay am problème ci pêche bi day am problème dans leer parce que particules yi boo lakkee charbon bi particules day yéeg ci kaw. bu yéegee dafay des su tawee mu wàcc dafay andi pluie acide et autour de la centrale bu ñuy fàttaliku article 13 du code de l'environnement dafay wax ni des établissements classés de ce warul nekk à 500 mètres fu nit ñi dëkk centrale bi mu ngi ci biir fu nit ñi dëkk problème bi ñuy waxul bar euh, Bargny mooy ngelaw li day upp du nord vers le sud mais au nord de Bargny au sud de Bargny fa avion yi di commencé wàcc jëm aéroport. Mhm. donc lu cône d'envol des avions dafa nekk dans l'axe de la fumée de Bargny donc non seulement day yàq population day yàq population bi feebar leen pluie acide bi day yàq ñax mi ndox mu tàng mi day yàq géej gi te dafay feebaraate te dëkk bu mel ni suñu bos centrale à gaz ak centrale à charbon warul nekk. fi nit ñi dëkk du solution. du solution ci bi fi biir nit ñi dëkk. dañ ko war a génne dëkk bi te président fi mu toll ci wàllu engagement en matière d' environnement ba soppi suñu constitution mhm. par référendum boobu 2007 2000 bi waaw biñ ciy wax yëpp dañ lay wax environnement bi alam bi moo tax mais munoo protéger alam bi di di defar ay centrale à charbon très bien ci Mboro ak Kayar centrale à charbon bi dafa nar a yàq fi nga xam ni foofu la ñuy produire suñu karoot ak suñu chou waa bari Bargny daal dañuy continuer mobiliser wu ba centrale à charbon bi jóge fa ñu nekk ci combat bi ñu ngi leen sant di leen gërëm lu bare bare mais sama problème mu baie de Hann dañu bëgg président wax ci pour baie de bi tàmbali ak jàmm. plaidoyer bi euh, jàll na merci beaucoup euh, Mbacké euh, Seck le président du réseau national des organisations pour la protection de l'environnement on